kon Mariane ñun ñëpp ñu ngi lay ñaanal mm-hmm. yàlla may la gudd fan ak wér eh, ci barkeb sa sang Maulana Cheikh Ibrahim mm-hmm. eh, ma ko mayoon mais dama la koy mayaat cadeau quoi voilà l'Afrique aux Africains mm-hmm. eh, muy bi ki ko bind di Mohamed Mahdi Ibrahim Niass yaa ma ko mayoon mais dama la koy mayaat voilà mooy sa cadeau anniversaire ndax ni nga mel ci góor gi bii tamit mu ñu ngi ko tuddee visite à El Hadj Ibrahima nga bëgg ko lool ma may ko happy birthday le gâteau anniversaire est là. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Marianne. joyeux anniversaire. comme moom kukum kakam la. du xale du mag xamuñu atam moo tax ñu defal ko ci ab zéro rek parce que xamuñu ñaata at la am kukum kakam 100 pour cent la voilà. kenn xamul ñaata at la am. Marianne dafa bouger. allez <laughs> mais ëfam dëgg bu ko ëfoon gàtt bi fee dali. mais mais El waaw mais El Hadj Pape di ñaanal Mariana. Ah. yàlla yàlla yàlla yokk ko. amiin yàlla sàmm ko. amiin yàlla guddal fanam. amiin amiin coono bu ne mi koy daj ci télé liggéeyam. wallaahi wallaahi coono bu ne mi koy jànkonteel ci liggéey bi. wallaahi El marian Pape Mariane di nit ku tedd. Mariane di nit ku yiw. di ku baax di ku mm. respecté ñëpp. Mm. di koo xam ni boo xewlee coono gu nekk dina ko daj pour loolu mm. am ndam. Mariane jox ñëpp cër. marian du mer Mariane respecté ñëpp. fonk liggéeyam nag. Mm-hmm. waaw fonk liggéeyam. kon nu ngi koy ñaanal yal na yàlla guddal fanam. yal na yàlla aar ko. yal na yàlla sàmm ko <laughs> yal na yàlla fal ko cat dafa baax de balaa déwén yal na yàlla may ko boroom kër bu baax a baax ci darajey rasulullah waaw Mariama nit ku baax a baax waaw euh, ci mbaax mooy nit koo xam ni boo koy tooñ muy gën a kontaan loolu mbaax la ah. waaw loolu ñëpp a ko lakkal ñëpp a ko lakkal mi ngi mi ngi noonu kon yéen sax da ngeen di xale yéen yéen ñi oustaz ñii sax dañuy di xale ñun mm-hmm. dañoo yàgg ci loxo ay ay loxo mm-hmm. loxo yu ñu téyee xam nañ ko mm-hmm. nga boo yàggee jaaru moom na bu boy sax mun na laa jaaxal ànd nañ ba ànd ak moo tax ku ñu bëgg rek baax nga Marianne mii euh, dafa baax man bu ma ko waxee rek mm-hmm. euh, ñëpp war koo mun a gëm mm-hmm. baax na fonk na liggéeyam et puis professionnel surtout mm-hmm. euh, yenn saa yi mu neex yenn saa yi mu metti mais terewu ko baisser les bras moo tax démb ba tey say collègue di wax fii ku fi anniversaire ñu waxal la ay fan yaa ko liggéey du ñu naa ndax ñun dofuñu boo woyu woo ni dañ naan joyeux anniversaire boole ci ngóobi <laughs> waaye démb ba tey ba tey ñu ngi wax li ñu bëgg a wax yëpp donc joyeux anniversaire encore dundal loo dund loo dund doyul loo dund euh, doyul lu dul mbaax mbaaxu ko gën mm-hmm. Mm-hmm. kon euh, ñëpp góorgóor lu baax mm-hmm. te fidèle te bàyyi créer créer ay noon damaa bëri noon léegi ñëpp koy wax dangay gis ku ku ku tekkiwul dara sax naan samay noon samay lii samay laa arrêtez de vous créer ay noon yooyu yëpp amul sens baax rek am solo te euh, Marianne mi def na ko sa ndey ja nag bu dellu si waatoon man gëm naa ne doo defaraat sa toogaay elle doit être contente là où parce que yaa ngi baax mm-hmm. voilà yaa ngi baax lu mu defoon ci yow rek mm-hmm. euh, tey euh, ñi ko xamoon te xam la euh, defe naa mm-hmm. réccu wuñ ko donc ñu ngi lay ñaanal bu baax ñun nag xoola na tekkul dara bam dut saw na dem fële ay aali am dem ba kaasu mag yooyu yëpp waxuma ci donc ñu jeexal yeewu leen bi merci Mado à lundi bu soobee yàlla à lundi mon mm. cher comme ni ko waxee di la remercier boo ma ko permettre vas-y euh, la sasee dara foog nga kii ko donc dafa am benn association boo xamante ne ay xale tout tànk elles n'ont que peut-être ay 15 16 ans ñoom tamit dañu organiser benn euh, association boo xamante ne moom la ñu duppee les enfants agissent pour les enfants donc dañuy def nag euh, benn conférence conférence bu mag de presse samedi incha allah le 11 maanaam samedi bi à 11h à l' institut africain de management IAM. Mm-hmm. donc nag bëgg rek sensibiliser képp koo xamante ne moom moo di xale ñu def benn descente ci dans la rue dimbali xale yi. Mm. seneen yeneen morom bi donc c' est des jeunes des enfants yu ndaw bëgg maye ay yére lu ci munti doon. c' est bien a gars yi dem foofu. Mm. ndax ñu mun a jàppale xale yooyu et je pense que même Abiba la dernière fois boole nañ ko ci euh, ci marraine yi yooyu donc vraiment ñu ngi leen di féliciter. Mm.

ah Marianne Siva comme ni ko ñëpp di waxee ne change pas. Ah, xale bi bu baax nga daal. voilà euh, reste pata comme t'es. reste pata. merci Mado Dieynaba Seydou Ba à demain. oui à demain inchallah euh, Pape mm-hmm. Cheikh gërëm la c'était toujours un plaisir euh, comme chaque vendredi de partager ak yéen ñëpp team yeewu leen vendredi comme on le dit souvent nee nañu nday peccum liir bu neexee nday yaa tey ca mbagg ya mm-hmm. tey jii su ma neexee ne Sénégal yëpp maa fi gën famille ndaxte. famille boo xamante ne lu baax di la ko jox pour nga sol ko donc franchement macha allah ci jàppale bi euh, euh, si grand boubou bi vraiment ça me va droit au cœur euh, voilà di souhaiter joyeux anniversaire Marianne Marianne nee di ko Pape Cheikh waxee tey ji sa sa yaay si àjjana gi mu nekk kontaan na trop ci yow donc li ñuy wax rek liggéey liggéeyu ndey dafay feeñ ba ci bépp milieu bi nga nekk donc vraiment comme dit Mado ne change pas on te souhaite un joyeux anniversaire na nga dund te lépp loo am sa àdduna mu jig la macha allah donc di leen remercier yéen ñëpp. voilà liggéeyu ndey day feeñ ba ci poids. ba ci poids. <laughs> merci ñaatam. <laughs> Cheikh merci beaucoup euh, ci occasion bi di souhaiter joyeux anniversaire à Adja madame Guissé bu Tata Majooju. ah la anniversaire am anniversaire am de mariage moom ak ah, de mariage donc <laughs> Adja tey jël na bi de. Adja <laughs> souhaiter joyeux anniversaire mais également. Adja Constance euh, ñu ngi koy la coiffeuse ñu ngi souhaiter joyeux anniversaire. Mm. Euh, Pape Cheikh di remercier Star Couture HLM chez mm. Oumar ñoom ñoom habillé Stade Urbam la nekk 77 574 15 gërëm sant Yvonne Coiffure waaye suñu maman maman Fatou Anta Tata Anta Sare. Ah. bu HLM moom ah. moo ma jox tissu. yaayu Soda Kassé yaayu Soda Kassé ak Mousli Kassé ak Mousli Kassé. c'est une très grande battante. moom moo ma jox tissu ah, bi. moom nit ku nit ku baax la. Euh, Adja Anta Sare dee naa ko Anta Thiam yaayu Soda Kassé. Mm. Euh, ak Mousli kase nekk fi nga xam ne ni mooy HLM euh, moom dafa jàngal doomam yi jom ba ñu nekk ay jàmbaar. Mm. donc ñu ngi koy gërëm bu baax jot nañu yóbbante yëpp. Mm. merci en